salaamaaleykum mbokk internet yi tey jii rek ñu ñëwaat rek di leen yëgal li nga xamante ni mooy seen revue de presse bu sunu làmb le octobre 2021 tey jii nag di mercredi waaye nag lu si gën a fës nekkul lenn lu dul combat bi nga xamante ni moom la bombardier amaloon foofee ca bitim réew ak Marius di doomu polonais boobu waaye nag ku ci wax nekkul kenn ku dul Reug moom mi nga xamante ni maîtrisé na loolu combat boobee combat yooyee sax ñu naan euh, NMA Reug Reug moomee sax ñu fekk ko foofee ca euh, Californie euh, muy préparer li nga xamante ni mooy euh, combat moom ak rëg-rëg moom nag mu am client bu jéggi dayo loolu ñu naan ko guy gi moom rëg rek di préparé combat moom ak guy gi combat boobee sax ñu ngi koy amal le 2 janvier 2022 foofee ca arène nationale waaye nag kii di rëg-rëg moom rekk nee na combat boo jël rek risque la ndax kii di bombardier rek dafa jël risque mu ne nag àdduna bi rek it lépp loo gis risque la waaye nag nee na kii di Bombardier préparé na combat euh, bu baax ndaxte kii di euh, Bombardier moom ba mu ñëwee rek li mu mën a def rek mooy songu waa ji waaye nag dafa mel ni dafa xamul waa ji nee na ndax Bombardier euh, champion la waaye nag koy encouragé ndaxte Bombardier moom nekk ab sportif la moom Reug Reug rek nga xamante ni am na lu tollook ñeenti combat si MMA boobee sax nga am na si xam si xam na si lu bëri ndaxte am na ci ñetti victoire ak benn défaite moom Reug Reug sax défaitam boobee rek dañ koo dóorul mu kaaw mu doon loo xamante ni lu doy waar loolu waaye nag ko ko dóor mu kaaw nekkul kenn ku dul doomu Belarus boobee rek mu doon européen yoo xamante ni dañoo maîtriser li nga xamante ni mooy combat MMA waaye nag Reug Reug nee na Bombardier moom rek dafa pertoon li nga xamante ni mooy armam maanaam arme yi nga xamante ni moom la bombardier war a gérer moom bombardier da ko fàtte ca ginnaaw loolu sax moo tax mu jël kaaw boobu ba kaaw boobu doon kaaw bu métti loolu si ki nga xamante ni mooy bombardier ñu ko naan B52 dëkk foofee ca Mbuur waaye rek dootu ko defati ndaxte kaaw boobu rek bu arbitre yi gaawul woon rek kii di bombardier dina ñàkk li nga xamante ni mooy bakkanam ay kàddu rëg-rëg la moom mi nga xamante ni mu ngi waajal combat am foofee ca Californie combat boo xamante ni moom ak guy gi la ñu koy amal le 2 janvier 2022 foofee ca arène nationale waaye mbokk yi bu ñu fa jógee rek dañ leen xamal li nga xamante ni moo dox ci combat MMA boobu ndaxte kii di Doudou Ndiaye Diécko moom tamit wax na si nee na MMA bu dangereux la bu violent nee na nag ba mu seetaanee li nga xamante ni mooy combat bombardier boobu ndaxte moom rek bañ ko ko envoyé ci whatsapp ci la ko seetaan waaye nee na sax dafa mujj yërëm ak ki nga xamante ni euh, mooy euh, bombardier ndaxte combat boobu rek daf na tour du monde maanaam wër na àdduna wërngal këpp dóoru bombardier boobu rek nga xamante ni dafa naroon euh, ñàkk bakkanam ba kii tax di Doudou Ndiaye Diécko moom nga xamante ni mooy première amateur bu lutte sénégalais moom rek wax na ci combat boobu nag ak képp kuy mbër war a bëgg bëri MMA nee na MMA dañ ko war a interdit sax képp kuy euh, sénégalais doon ab mbër war a bëri ci arène nationale di bëri foofee ca arène ndaxte li nga xamante ni euh, mooy euh, MMA combat bu dangereux la bu violent ndaxte nee na kii di bombardier bu nekkul woon ñii di arbitre yi bu ñuy gaawule woon rek dina ñàkk li nga xamante ni mooy bakkanam ndaxte. arbitre rek ñoo gaaw dindi li nga xamante ni mooy protégé dama bi ndax yóbbu ko foofii wala sax sauvé ko sauvé ko ngir mu bañ a bañ a ñàkk bakkanam kii di Doudou Ndiaye Diécko moom li nga xamante ni mooy président des amateurs moom nag yamul foofu ndaxte nee na Bombardier moom rek du def carrière ci MMA ndaxte li nga xamante ni mooy MMA xale bu dëgër këcc rek moo ko mën a def. moom Doudou Ndiaye Diecko ginnaaw ba mu seetaane li nga xamante ni mooy komba bu doxoon ci diggante Bombardier ak kii di Marius di doomu polone boobu nekk foofe ca bitim réew moom bi nga xamante ni ba mu ko gisee muy entraîné rek moom Doudou a Diecko dafa mujj téye li nga xamante ni mooy gémmiñam tax koo xamante ni ay avion lay xëcc ak ay terrain wala sax ay oto di leen xëcc di leen déplacé wu. nee na sax ah, mu ngi laaj ba xam kii euh, nit la waaye nag Bombardier bu ko xelam mayaat mukk ba mu dem di bëri ji li nga xamante ni euh, mooy NMA ndaxte bu bëriwut ak waa ji dina bëri keneen koo xamante ni euh, ku dangereux la nee na nag dañoo war a interdit képp kuy sénégalais nga bañ a di bëri ji li nga xamante ni mooy NMA ndaxte NMA sport bu dangereux la. sport bi nga xamante ni dafa violent rek loolu rek nit du ko def loolu di ay kàddu ki nga xamante ni mooy Doudou Ndiaye Diécko moom li nga xamante ni mooy nekk président des amateurs de lutte waaye rek buñ fa jugee dinañ wax ak ki nga xamante ni mooy Mouhamed Ndao Tyson moom rek wax na ba wax li nga xamante ni mooy dox ci diggante moom ak Gaston Mbengue ndaxte kii di Mouhamed Ndao Tyson nekk foon fii leader bu écurie bu écurie génération Boulevard nekk. foofee ca Pikine moom doomu Kaolack bi nee na nag kuy promoteur rek kii di Gaston Mbengue mooy sa baay ndaxte Gaston Mbengue moom nekk doomu réew bi la fii la juddoo fii la yaroo moom rek mooy promoteur bi nga xamante ni moo mën a génnee ay champion si arène di Sénégal waaye rek moom mooy promoteur itam bu njëkk a tëgg li nga xamante ni mooy kalaaf Gaston moom rek moo fi mën a génnee ay champion ndaxte Gaston kat ab liggéeykat la waaye nag li nga xamante mooy personalité moo ko may lii yépp loolu sax moo tax kii di Mouhamed Ndao Tyson ne kii di Gaston Mbengue rek moom mooy papaay kulli promoteur maanaam képp kuy tëgg làmb ci Sénégal rek Gaston Mbengue mooy sa papa ndaxte Gaston meng rek munoo wax làmb te munoo tudd Gaston Mbengue waaye rek munoo wax làmb te munoo tudd ki nga xamante ni mooy Aliou Sarr waaye nag. munoo wax làmb te munoo tudd ki nga xamante ni mooy Mouhamed Ndao Tyson loolu sax moo tax kii di Mouhamed Ndao Tyson génn rek ginnaaw ba mu toogee ay at génnul si làmb ji bëriwul baakuwul waaye nag waxul si presse bi moom rek ñëwaat na rek di xamal képp kuy promoteur rek Gaston Mbengue mooy sa promoteur moom rek nee na sax combat boobee rek di am foofe ca arène nationale bu Sénégal le premier janvier 2022 moom Mouhamed Ndao Tyson dina si ñëw dina bàqu wanewaat ni carrément moom moom bàyyiwul benn yoon li nga xamante ni mooy làmb ji waaye kii di euh, Tyson nag nekkoon fi écurie Boul Falé moom rek nekk fi roi des arènes moom rek mu ngi gën a dëggal li nga xamante ni euh, mooy euh, Gaston Mbengue ndaxte nee na Gaston Mbengue rek moo ëpp li nga xamante ni mooy euh, charisme si promoteur yëpp nekk biir Sénégal maanaam kii di Gaston Mbengue mooy ëpp bayre képp kuy promoteur moo xam ngay promoteur bu mag wala promoteur bu ndaw Gaston Mbengue mooy sa papa kon képp kuy promoteur rek da nga war a ranger wu si ginnaaw ki nga xamante ni mooy Gaston Mbengue mooy Gaston production waaye nag kii di Mouhamed Ndao Tyson ngi. wax ay fansam rek ngir ñu préparé wu le premier janvier 2022 ngir ñu déplacé wu moo xam ñu nekk Kaolack la wala sax ñu nekk biir Pikine ngir ñu ñëw feete li nga xamante ni mooy première journée bi nga xamante ni moom lay ñëw si làmb ji muy combat bu dox si diggante Balla Gaye numéro 2 ak ki nga xamante ni mooy Bombardier waaye nag. Tyson rek moom noppul benn yoon di leen xamal képp kuy promoteur kii mooy sa baay muy Gaston Mbengue production kon mbokk yi lii la ngeen indiloon seen revue de presse bu 27 octobre 2021 ak sunu làmb.